Bul murid au service de Mam Cheikh Ibrahim Fall. Oh. alaykum wa rahmatullah mbok julit yi mbokki taalibe yi mbok ñu top ci biiru ma ci bitim rew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baaxa baax di leen nuyu fi ci Thiès fi ci pencum Mam Cheikh Ibrahim Fall di Medina Fall gi nga xamné euh Mam Cheikh Ibrahim Fall mourid dina mo fi dekkone kër gi ñu tok moko santion euh ci 1904 dafa dekk ci yoon ba 1916 kon Cheikh Ibrahim def na fukk at ak lu top fii ngeen di gis nag fi la daa woote gàmmu eh, diir bi fi nekk Cheikh Ibra fii la daa gàmmu eh, kër gi foofu teg sa tànk waatal na Cheikh Ibra tegoon na ko fi gis ngeen bâtiment bu mag bi ngeen di gis moom la eh, alali maam Cheikh Ibrahima Fall ci njiital jëwriñ général Omar Seck jiite liggéey bi ñu ko doon liggéeyal ku tedd ki maam Cheikh Ibrahima Fall ku baax kaa ngi ci biir démb la wàcc fii ci guddi gi ci ay côté 22h jàpp 23h bàyyi ko Touba ñëw fas yéene gàmmu si na ko maam daa defee maam Cheikh Ibrahima Fall dafa waxoon ne. waa sawu jant lay gàttandu si eh, xam ngeen ne nag eh, lu jëm ci bâtiment bi gis ngeen eh, daluwaay yi noppi na kilifa yu bari dal nañ ci waaye lu jëm ci nag lii nga xam ne mooy dundal guddi gi mooy tanzimahu bi sunnati mhm. te mooy màggal ko ci sunna ndax yaxuuduna lil jannati mhm. daf ñuy womat ba àjjana kon dafay mel ne am na ci loolu mënu ci ñàkk te mooy bernde yi nga xam ne yittewoo nañ ko lool fii ci gan yi nga xam ne ñooy gan yi Cheikh Ibrahima Fall Baaju Muridiina yi xam ne fii la ñuy gàmmusee ci moom lu te lu rëy loolee nag muy lu jëm ci nag yeeg xar yeeg gëléem yeeg ganaar yi jëmm ji di général Omar Seck ak mbooleem kuréel gi mu àndal di alali maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ko sasoo ngir fas yéene ko bernde fii ci Madina Fall ci Thiès fii may wax ak yéen nag général boo ko fëggoon tey ñaari junni du la ko génneel te ay nag ak i gëléem war na fee ñëw tey jii ci bisu tey bi lu mat ñetti million wala ñaari million ak genn wàll soxla nañ ko tey tey tey eh, altine jii nga xamante ne bii moo tombeek euh, la vingt cinq euh, septembre di waajal gàmmu maam Cheikh Ibrahima Fall euh, defe naa sax fi may waxee naan soxla nañ ñetti million wala ñaari million lu teg am na kuy jàkkaarloo ak koo xam ne millions yooyu bu egsee moom ci jëm boppam sax ci loxoom lañ koy teg ndax moom mooy ki nga xam ne moo jiital nag yi war a bàyyi ko fuuta ngir ñëw tey ji ci bisu tey bii nii fii ñu toog nag addiye lañ yittewoo joo xamante ne bii day dem ci guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag jaare ci alali maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ñëpp alali maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ku am tawfeex rek bokk ci alali maam Cheikh Ibrahima Fall ngir nga jëf ci sa nga xam ne moo jiite liggéey wax ñu nag fi ne nii naka lañ war a dundee la gàmmu gi ak tey liñ soxla ci lim ci la jëm ci guddik tey bi. waaw di ñaan suñu am di Fall mu yàgg fi saa borom dundal wéral ak dundam. Mhm. yàggal ak dundam wéral li mu bëgg a liggéeyal maam Cheikh Fall ma def ko ni mu ko bëggee sax ànd ko ak murid yëpp siyaare mboolee murid yi mel ne ni nga ko waxee rek daa kàddu gi du gudd ndax di waxta leeral lépp leeral nga ko li ñu yitte woo mooy li nga waxee ñetti million wala bu mënta ñàkk mënta ñàkk ñaari million ak genn wàll tey tey tey tey ndax ñëpp xam nañ ne ki yor nag yi war a jógee Fuuta agsi na te bi agsee dafa ànd ak ki nga xam ne mooy pël bi bi nga ne moom la àndal war a jox xaalis bi ndax ba mu agsee foofa dama ko wax ne ko àndal ak moom soo ñëwee dina la jox xaalis tubarkaal te fii ma wax ñaari junni fanaanoo wàcc si Cheikh Fall yéen bokk sama poos nii dara ñëw fi ma ne ko ànd ak moom suñu dana jox xaalis bi altane moom it mu bàyyi fa ay kàddoom dem ci benn xarti euh, euh, bitigam bu ne foofa mhm. mu gaarante ko mhm. mu jël nag yi indi ànd bi ñu war koo jox xaalis bi balaa ngoon moom lañ yittewoo si Mamour léegi mu génn ñu jox xaar bi mën a jël nag ko Cheikh Ibrahima Fall mm. mu mën cee gàmm suba ak bisu gàmm bi ak la ca topp tubarkal kooku bàyyi may sa màngara la moom saa su ne day tayale boppam waaw ngir àll bi waaw loolu xam nañ ko boo xam da koy def ci màggal gi di ko def ci ndog yi di ko def ci tabaski yi boppam lay tayle mm-hmm. ngir àll li maam Cheikh Ibrahima Fall li Cheikh Rafal bëgg am kon nag murid yi nga xam ne yéen dañuy topp ci biir réew mi ak ci moo xam biir réew mi ak bitim réew fépp ci àddina bi nag Amérique Asie Europe alali maam Cheikh Ibrahima Fall tey fii ñuy wax ak yéen ci bisub altine ji tey nga xam ne suba la talaatay saa maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi muridina gannaaw suba ñu war a nag dugg ci guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soxla na ñetti million war a gën gaatu ñaari million ak genn wàll léegi léegi ngir mu dem ci nag yi nga xam ne moom la ñu fas yéenee berndeele seen maam Cheikh Ibrahima Fall ci ganam yi ndax woon na dama ndab ku bëgg de dab góor ñi Cheikh Ibrahima Fall nii na julli jox ñu lekk ba suur loolu lañ fas yéene tey guddi ki taxone yalla sakku nu te nak nga xamne fi fii ñu toog cheikh Moudou Moussa Fall gannaaw cheikh Ibra moo fi njëkk wote gam ndax wóotu lako fi 1930 ba 1950. waye gorom guddi ji lako cheikh Ibrahima Fall depp mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mhm. te cheikh Ibra neena yaronte ci bopam mo sakku ngir ma dippe ko mo mën may ma turu turandoo bi Baye Ibrahima Mbodj neena makoy maa diko bës diko ko bam yag mom cheikh Moudou Moussa Fall mu ne ma Ibrahima Mbodj mu ne Fall mu ne ma ndax xam nga ko ma tuddee mu ne ko mu ne ma bi sallallahu alayhi wasallam sallam la Moustapha ngi nii ci biir Moustapha ngi nii ci biir te moom mi Moustapha mi Moustapha mi lañ ko dippee waaw tubaarkàlla kon nag ñëpp xam ne nii ci biir mi ngi nii ci biir waaw wallaay ci biir nii tubaarkàlla di dégg li ñuy wax alhamdulilah ñëpp xam nañ ne agsi na biig mm-hmm. agsi na biig ngir waajal guddi gi suñu lay fii ci Thiès mm-hmm. waa kon nag fi maamoon Mhm. amatul xaar mhm. na murid yi yëngu jaara ko ci waxukaay yi rek waaw jaara ko ci murid yi gaaw yi mhm. waaw wéef orange moo ne moo ne garaab lu waaye am rek fàttali ma numéro bi nga xam ne buñ ci jaaree 78 eh, bi nag dafa plafonné daa mel ni waaw damay joxe 77 315 79 00 waaw dem waaw 77 315 79 00 00 wala bu fekkee ne boobu am na as ma ne am na wéef am na wéef wéef la am wéef rek waaw 78 moo am orange ma ne mooy 78 534 89 11 boobu murid yëpp xam nañ ko boobu ku ko jël boo ma ci woowee naa la wax numéro bi fi ñu koy dugal rek tubarkalla muy daal lu mën a xew mooy ku am yéene tàbbal wooteel ci numéro yi rek waaw 78 nañ la wax yoonu ngay jaar muy 78 waaw 534 89 11 ku woote ci numéro boobu rek dinaa la wax fi nga tàbbal addiya ji ndax boobu la murid yi a miin alhamdulilah ak ça kon jërë ngeen jëf kon xam naa noo ngi leen di bàyyi nag ngeen dem waajali addiya ji ñoo ngi leen di xaar fii ci daara yi maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouride jërëjëf Boul Mouride au service de maam Cheikh Ibrahima Fall